communication ñu ngi lay nuyu bu baax di la di la wax ne nag am na loo xam défilé nit ñi doon ko xalaat ñu naan du am tey nga fexe ba mu am lan nga yëg tey waaw xam nga du am ak dana am Gaston production dama naa ne ñëpp xam nañ ko def li muy def ci làmb mënut may def lu mu fi deful woon ndax làmb tey yàlla dogal na ni ci kattanam su ak see vidé nag modestie à part Gaston production la léegi nit ñi nag lu sotti ñu bëgg a wutal borom ñëw ak seen i polémique ak mbel gi bari na wax ji bari na temps yi mais ñiy wax war nañoo tal leneen ci seen bopp lu dul taxaw di xëccooy làmb ak di wax loo xam ni c'est invraisemblable parce que lii gàcce rawu ko man am na loo xam ni su ma naree dal yàlla rey ma sax mu ko ko doon. mais yow combat bi yow nekkoon au top bu doon rawante dañuy wax ni départ woon kon yan ne nga utiliser ba mën ko récupérer tey. man mësuma départ euh, ci dara man sama. sama intelligence ci organisation ak nu ñuy e làmb kooku nag nit ku ne yaa xam ne doy sa bopp jëraf kon tey mën nañ wax ne expérience nga leen gagné. non na euh, ndogalu yàlla laa leen gagné yàlla dogal lii du man. waaw ah, mais ndogalu yàlla day am sabab. waaw mais dama man sabablu na mais yàlla dogal. waa léegi nag mu am beneen laaj bu nit ñi di laaj mu jaaxal ñëpp mooy làmb ji euh, xam na ni fi mu ne yaa ko tëgg mais da nga ci ànd ak Aziz Ndiaye wala parce que nit ñi ñu ngi koy. ànduma jeeg kenn. ni ma toogeeg bi dem ñu ngi nii mu amee Modou Lo noonu laa toogeeg Aziz Ndiaye sama jarbaat la dans la vie sama nit la sama jarbaat la c'est que ñoo war di bàyyi sos ak di wax Aziz mooy parrain Balla Gaye moom la Balla Gaye dénk boppam Biram Ñing moom la Modou Lo dénk boppam yaa kom man maa ko jël pour mu ameel ma samay communication parce que nag ta ta mënatu nekk di wër di toppatoo sponsor te lii c'est pas une première pour Gaston Production indi woon naa fi ay tubaab en 2010 kenn waxul woon parce que ay tubaab lañu li tax tey ma ànd ak ay sénégalais yu bëgg a liggéey dàq liggéey tubaab yi ñu bëgg ko def problème. te du politique tax. lamb ji moom politique maam man ma lamb ji tax politique a ma ci delloo. am na lu ma for ci wéewu bay dégg naa même mbëri seen contrat après campagne président def ci bokk est-ce que dëgg. su ma neexee maa moom sama yëf. maa fay sama xaalis lu ma neex laa ciy def man nëbbatuwuma. kon mën na noo xaar après mbër yi ñu campagne. mbër yi campagne campagne mais man may campagne mais mbër yi man contrat la am ak ñoom li may def samay saa yu ma toogee ak ñoom wala may wax saa yu ma neexee wax sama waxu Macky Sall sama candidat la. waaw non loolu yow la mais di signé contrat lamb boole ci mbër yi après pour ñu campagne est-ce que loolu tamit du yàq lamb non mënu la yàq làmb mbër yi campagne ñun. sama événement mooy campagne. dama dégg ni mbëri contrat bi loolu ci la bokk bu làmb ci jeexee ban demit élection yi danuy campagne président. non làmb ji su jeexee président campagne na ba moom réew mi ko campagne man am naa droit nag sama biir làmb may wone ay réalisation président ndax maa moom su président moo ko financé. yeneen non jamais président financé wu ko yeneen candidats yi nanul combat nanul promoteur alors ku mën na def. Euh, jërëjëf